salaamaaleykum mbokk internet Lutte TV rek ginnaaw bi ñu leen nuyu ziar leen ñoo ngi fii si Gandiaye tey nag ni ngeen ko gisee rek jël nañ suñu papa Baba Ngom moomoo la ñuy jël si gan ba Gandiaye nag heure bu ma ko waxee rek sama xel dafay dem si Baye Fall Gandiaye doomu ndeyu Baye Saliou ko mais dara balaa dama nuyu moomoo bàyyi ko mu nuyu moomoo nuyu. waaw maa lay fay gànnaaw bu gor ginnaaw bi ma sant yàlla julli si yonent bi di sant samay ñaari waajur ak sama tanta maa ngi gërëm waa Sénégal yëpp di sant waa Gandiaye tamit. waaw di leen wax ne maa ngi baal ñëpp ak si korte gi ñu jógee di baal ñëpp yàlla ñu yàlla boole jégal yàlla defal ñëpp jàmm def ko def ko si réew mi def ko fépp si àdduna bi daal waaw. moom moom ko mag tëgg moom moom kañ la commencé tëgg. waaw man 2017 laa commencé tëgg 2017 laa commencé di tëgg laa commencé jiite groupe waaw 2000 mais yàgg naa di tëgg nag mais 2017 laa commencé di tëgg ndaxte mu man sam papa foog naa dañoo bokk semé parce que man gëm moo tëgg. man jàng football laa gëmoon sama ñoom papa bi mu ñëwee dañ doon tegi sax man may bàyyi booy ndaw yi ñuy tegi man damay dem di jàng bu ma wàccee damay dem football yi bi mu ko defee daf ma jëloon sax moom dafa bëggutoon sax ma tëgg daf ma jëloon dugal ma si centre formation école football bu nekkoon fii Sibassor avant Kaolack centre José Maria fa laa nekkoon chaque mercredi samedi su ma wàccoon fa laay dem bu ñu demee dañuy jàng ba pare soog a football mais comme li yàlla lay def rek ñu dem ba si digg bi ndog jàpp ko mu am tawat te jaam bi moom yàlla bu la bëggee foog mu lay teg natu waaw bi ma demee ba xam ne fi mu toll nii tamit maay sama taawu papa te paa bi dem na ba lim mënoon mënatu ko ma ne il faut ma révolté wu jël relève bi waaw ndaxte loolu moo fi sosoon. Mhm. nga wu jël relève di tëgg sa papa bu tëggaan stade bi wala bu dee arène la day vibrer day yëngatu moom moo ñëw tëgg bu tëggee mu gën a mu gën a xottee ko tëgg bi don la wala yow da ngay nga ko da toog di ko jàng. waaw tëgg bi nag loo xamante ne dama koo doon la ndaxte man mun naa sama sama papa sama côté papa sama papa ak sama ñaari maam yi dañ doon kii day doon tëgg kii di way sama côté yaay tamit ñoonu seen ñaari sama ñaari maam yooyu dañ doon tëgg di way kon man mun naa ne tëgg bi dafa nekk loo xamante nii deret la si man waaw ndaxte sama maam dégg nga sama papa ni mu la ko waxee sànq sama maam a doon tëgg. ba pare sama papa di tëgg kon su ma ñëwee jël daal mooy damaa delloo buum sa booy booy ga waaw mais nag am na loo xamante ne nii yàlla moo koy def ndaxte yenn saa yi nga nekk di def loo xamante ne nii dangay ngay pare xam ne lii du loo jàng waaw. tëgg bi fi mu toll nii noo koy dundee ak njàng mi wala da nga bàyyi jàng bi. non maa ngi jàng. maa maa ngi jàng terminal. maa ngi terminal bàyyiwuma jàng. waaw football bi daal nga xaw a bàyyi. non football bi tax ba léegi ndaxte mun naa ne démb rek laa si jóge waaw. yaa ngi nawetaan daal affaire football championnat waaw mais mun naa daal fi mu toll nii tëgg mi mooy priorité waaw ndaxte fi mu toll nii si laa gën a basé wu ko football bi ndaxte am na yenn temps yoo yi ma doon am pour football fi mu toll nii mënatuma am temps bu mel noonu ndaxte championnat yi sax boo xoolee ren li ma si football si ay match bëriwul ndaxte bu demee crédit dinaa ko mën a football mais presque weekend yu bari daf may fekk may am ay programme te fi ma toll nii nekk naa ni koo xamante ne nii dëgg la xale laa. mais mun naa ne li mag ñi def maa ngi koy def ndaxte mun naa ne maa ngi gérer gàlle maa ngi gérer suñu kër li sama doon def fi mu toll nii maa ngi koy def maa ngi sant yàlla xale laa mais yàlla ak may dimbalee loo xamante ne nii heure bu ma ñëwee dinaa si am lu ma si suturloo man ak samay waa famille ak ñi may àndal waaw. tëgg bi ñu ñu ñu gis ne des fois tëggkat bu ñëwaan même bu ñu waxal ne doonatam daan am lu mu daan àndal tëggkat bu dugg si waan si làmb bu làmb ji waree toj da koy xam bu làmb ji naree neex da koy xam tëggkat sax daan xam sax mbër bi nar a jël drapeau est-ce que loolu moo ci yéen wala. waaw man nag fi ma toll nii ah li ma lay wax rek man sama papa moom mooy sama lépp. mooy manager mooy prof mooy lépp mooy prof mooy xalif mooy lépp waaw. làmb bu may dem sama papa dina ma ne làmb ji nii lay mel te bu ma demee xam naa ne làmb ji noonu lay mel ndaxte bi may njëkk a dugg Grand Yoff 2017 boobu noonu. jour boobu sama papa boobu benn làmb dong la am dakaar muy làmb jooju ba may dem daf ma ne làmb ji laa dese Dakar làmb ji ngay continuer di tëgg dakaar wala nga wala nga ñu jaar fi dootuñ tëgg Dakar ba faw ndax moom booletu doon boppam mu ngi wax sànq ne ñun dañoo amoon am demoon ba amatuñu woon confiance si moom mais moom si boppam demoon na ba amatutoon confiance sax si boppam. feebar bi feebar bi mais yàlla buy defar day mel ni kuy yàq waaw. làmb nag bëri na fi ñu toll nii am na loo xamante ne nii ay ndaw lañ mais am na si loo xamante ne nii dañ koy xam si làmb ndaxte mun naa laa wax ne nit ki yàlla du du maye lépp daal mais dina am leen loo xamante ne nii suñu borom da koy def si yow voilà waaw te tamit xam lépp wax lépp baaxul waaw. mais fi mu toll nii euh, tëgg bi kase yi. parce que ni ko paa bi waxee rek tëgg dafa métti. yéen jiitu si géew yéen fay mujjee tëgg itam lañu gis tur bi gars yi di féete ba ñaax est kese yi. kase yi yi di fay mbëri tëggkat yi est-ce que yéen ngi si gis seen bopp bu baax. waa kase yi nag moom xam naa ne day am loo xamante ne dama ko si wax mais lu si bëri duma ko mun a wax ndaxte man ba léegi ndongo laa rek képp ku ma soxla sama ménagère ngay waxal ak sama papa man paa bi daf may dem rek na ma jëlal dëgg mais dinaa ko ne lii laa bëgg ñuy tëggee ndaxte fi mu toll nii tëgg dafa metti ndaxte gis nga lii bant bu dee la. ndënd bii nii bant bi daal dee peeg bi dee der bi béy bu dee la ñu jël ko foor ko loxo yi di koy tëgg dañuy dund kon loolu mënul neex foog mu métti ndaxte boo gisee di tëgg ba ay ngay génne di génn nga xamante ne nii loolu métti na lépp looy def ba si ñàkk rek yaa ngi siy dépensé énergie kon loolu lu métti la te damay gis ñuy tëgal ay mbër ay cinq millions mais dafa jaadu tey bu ñu tëgalatee mbër 5 millions le minimum le minimum war nañoo mën a jël bu dee benn cinq 500000. ñu fay tëggkat bi cent mille fay waykat bi cent 500000 ndaxte tamit ñoom ñooy njëkk si làmb ñoom ñooy mujj si làmb te nee naa la làmb mun nañ dem mun na dem sans mbër ndaxte làmb dina am tëggkat am waykat am animation bu neex te du am mbër ñu ne làmb ji de bu amoon mbër mais làmb kenn mënul dem du bëre ji te amul amul woy amul tëgg nañ xool CEDEAO bu daaw bu Niger sénégalais bu ñu jógee fii di dem. dañuy jël seen seeni seen i téléphone wala seen i di si def ay son làmb pour mun a motiver seen i mbër ndaxte mbër dafa am lu koy yëngal si làmb mbër mun lu koy yëngal si làmb géwél la ak wéykat kii tëgg ak kii wéy kon am na caal cër boo xamante ni dëgg la jox nañu cër gaa mais dafa dafa gën a jekk mais loolu nag si ñun la ndaxte man maa mujjee ñëw si làmb ji maa si gën a doon xale mais chaque jour dama siy waxtaan ak sama idole Maodo chaque jour tey ñun ñun géwél yi tëggkat yi ak wéykat yi war ñoo am benn mobilisation boo xam ne benn association boo xamante ne nii dañ koo war a def créer ko mag ñi jiite affaire yi képp ku si nekk ñu wax ne lii la ñuy tëral ku engagé ti làmb ku si nekk lii lañ lay fay wërsëku yàlla wërsëku jaam nag yàlla rek si mun dara mais du doomu aadama buñ ko defee ba ñu si suñuy prix képp koo xamante ne nii ki nga ku si nekk fii am na ko la saf man làmb yi fi nekk yëpp moom moo mënu koo tëgg Maodo munu koo tëgg beneen tëggkat mënu koo tëgg. wékk xii noonu mbayang muy noonu muy tanta aadama jali mais war nañoo waxtaan si benn kase boo xamante ne nii ku soxlaati gëwél wala tëkkat kase bii ngay dem boo boo ko wooyee lii nga koy fay tey mais tey dama da ngay oo Maodo Maodo ne la cinq cent mille nga oo Momo Momo jëm cëgale la ko si soixante quinze mille bu boobaa li Momo di di ut du mës a sotti ndaxte Momo Momo Maodo bu nangoo cinq cent mille Momo ñoo bañ ñoo ñoo ñoo bu bañee cinq cent mille Momo ñoo nangoo soixante quinze mille bu boobaa Maodo li mu bugg du du mën a nekk il faut que moomoo déggoo ak Maodo Maodo bu dee soixante quinze mille ku ñëw si moom mu ne mu ne soixante quinze mille far force di nga si jël kenn kan kiy jël loolu wërsëgu yàlla sunu borom la moo koy def ndaxte ku si nekk am nga promoteur booy dëggal waaw mais gën damaa gis daal ne bu ñu gënoon waxtaan suñu biir daal li sam papa sànq ñu làmb fi ñu toll nii ku si nekk mun nga say tedd te waar bi nag paa bi dafa béy yoon bi ba mu leer nañ ñëpp si war a ñëpp si war a dund ndaxte comme li ma lim paa bi doon wax. paa bi dafa doon toog di dundal ñaari kër tey paa bi képp kuy tëgg làmb senegal fi mu toll nii. da ngay tëgg galañam da ngay tëgg feemam. da ngay tëgg feemam da ngay tëgg galañam à part Kafaal ak Abdou Ngodo képp kuy tëgg làmb si fa sam papa fii nga jaar muy Idole Maodo di Père Ba Faye di Pape Mor di Zal Faye di Mbaye Guèye ñoom ñëpp sam yar. ba Mbaye Gueye ak ba Maodo ba léegi ñu ngi gànjaay fii si paa bi dëgg la paa bi ber na leen mais ba léegi dañoo ne dañ dañoo dem mun ne leen boo ñu beree tamit duñ génn gànjaay ndaxte ñun lépp lu ñu am si galañ yow la nekk gànjaay fii la ñuy nekk si wetam dañuy ñëw di ziar paa bi di jël seen ñax di ko jox paa bi maa ngi leen di sant tamit ñoom ñaar di leen gërëm di sant Maodo Mbaye Gueye Ba Faye ak seen mag nag Pape Mass ndax Pape Mass ñaawalul dara Pape Mass moom. tey jii mun naa ne yàlla tere mais bu fi sam papa jóge woon tamit ni sam papa bëggee woon noonu la Pape Mass di doxee ndax rôle bi sam papa di jouer mu ngi ko siy jàppale Pape Mass maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm sama ñaari mag yi nga xamante tamit ñoo nekk fii ak man muy Fall ak Babou seen sama turandoo papa ñoom tamit maa ngi leen di gërëm bu leen di leen sant bu baax ndax bu leen neexoon su ma moo di tëgg ñu ne ak ah, kii xale la duñ dem ànd ak moom mais Babou Sène bu bu muy ñuy tëgg muy ànd ak ñun tey fu fu ma mun di dem dama koy bu ma ko waxee jógal day bàyyi am na jabar day bàyyi jabaram bàyyi lépp fu may dem naaj bu tàng bi day ànd ak man si lu ma nekk mu ngi ci bëggul lu ma métti man jàppewu ma ko mag papa ko jàppee maa ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax a baax a baax. kon lan ñuy tëjee rek si gàttal après nga ñamal mi si ndënd bi tuuti. <laughs> non li may sant li may tëjee mooy damay gërëm sama groupe bi may àndal ndaxte grand bi tey moomoo neex na nii rek ñëpp naan moomoo moomoo mais ñii si ginnaaw moomoo la ndaxte tey su ma fi nekkee du tëgg benn sabar bi. tey yaa ngi nii di ma jël ñoom ñu nga ne si làmb ja di tëgg te ñoom ñoo may gën a fournir ndax man maa ngi fii ñoom ñu nga fan di di ñàkk seen doole te su ma demee dama leen di tëggaat diis ndaxte bu ma yeggee la tëgg am fu la ma sax di doog a te lépp lu ma soxla dañ koy andi damay tëgg yenn saa yi ñu di tëgg bay waayo sonn su ma leen ne ku si nekk lépp loo amoon da nga koy jéem a yokk loolu du si dara lu bugg man ma gën a kontaan kon ñoom man awma seen fay tey fu ma mun di toll sama waa groupe la maa ngi leen di gërëm di leen sant moo tax damay toog di wax ne man aar bi lu ma si nar a am te naru ma koo bokk ak sama waa groupe barki Seydina Mohamed yàlla bu mu ñëw damay ñaan yàlla lépp lu may am ma bokk ko ak ñoom nga xamante ne ni ñoom fu mu mun di toll ñoom la di gërëm sama rakk papa nag mbay ngom ndax mbay fi mu lépp lu sama papa di def fi mu toll nii mbay mu ngi koy def si kër gi mbay mu ngi ñuy toppatoo lépp mu ngi koy def bëggul dara lu ma métti boo ko gosee da ngay foog ne man ak moom ay seex lañ di gërëm ñëpp daal di gërëm monsieur le maire bi nekk fii Pape Songde di gërëm per buur Bourga Ndiaye ndaxte fii dëkk bi ba léegi dafa am buur moo xamante ne mu ngi def si dëkk bi liggéey bu rafet di mu ngi def loo xamante ne nii daal wax dëgg fa yàlla ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax di sant nag Mignane Ndiaye grand Mignane ak Pa di sant sama waa koñ di sant sama waa dëkk waa Gandiaye bàyyiwuma kenn ndox meeg ñëpp di sant sama jigéen sama lépp Mariama Fall di sant sama rakk yi nga xamante ne ñoom laa bokkal ndey ak baay muy ñoom Oni Ndiarème Mami Ndiaye bàyyiwuma kenn daal ñoom asu babazal paaliw mbay di gërëm sama mag yi nga xamante ne nii tamit barki Seydina Mohamed ñoo bokk papa lañ bokk ñoom mais dañoo xam ñu toll dañ naan ñoo bokk ndey ak baay bëgguñ lu ma métti muy asumaam ndaama ak ndey di leen gërëm nag ñoom di sant ñëpp su ma damay juum sant sama gaay yi nga xamante ne maa ak ñoom ñu ngi ànd yëpp ñoom Passiré Bass Abdou Ndiaye Pa Ousmane ñoom ñëpp Fara Thior bàyyiwuma kenn daal ak waa Diso maa ngi gërëm ñëpp. di sant ñëpp di leen ñaanal jàmm ne yàlla na yàlla def jàmm si dëkk bi defal ko mbooleem jullit kontaan naa si ñëpp nag waaw di sant nag spécialement sama tante sama tante ji nekk si kër gi mooy aaw mais mënu ma wax si moom ndax daf ma jël teg ma foo xamante nii tegu fa doomam mu jur tey man su may génn fii di teggi garant bi du caaxaan de sama xel day dal te xamul tax tey ay wujju nekk nañ te kër ga neexul mais tey jii moom ni mu jàppee sama yaay jàppee ko wujj da koo jàppee rakk jum bokkal ndey ak baay fu may mun di dem daf may oo ñaanal ma conseiller ma saa yu ma demee damay jàpp ne man kat jàmm laay fekk suñ kër ndaxte bi paa bi feebaree nga koy xam fépp fu paa bi xamoon ne paa bi dafay dem bu ñu amee xew paa dem taxawi fa bi paa bi feebaree fu xew amoon ñoom ñaar ñooy sol seen yére dem taxawal fa paa bi ñoom dañ may yokk fit maa leen di sant di leen gërëm di gërëm nag Babacar Diagne ndaxte tey 3S Pro gi nga grand bi. nuyu de passage. lu am. yàlla kooku la moom ma njëkk jëndal di sabar may tëgg làmb lundi ak mercredi di jàngi di ñëw làmb saaku ceeb fii mbër yu bëri dañoo war a taxaw fii di sant Babacar suñ mu toll nii mbër yu bëri ku si mel ni ñoom Ngor ñaax ñoom Papa Ngaan ñoom seex Ndiaye ñoom ñëpp si làmb Babacar Diagne bi lañ fële ba tax nit ñi xam leen kon kooku tey ñun tëggkat ak mbër yi am na njukkal buñ ko amal moo may jëndal sama sabare moom moo ko jëndal mun naa ne duggee Dakar yàlla ak moom la. moo njëkk a lijjanti contrat bu ma dugal Dakar Babacar Diagne kon maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla li muy yootu yàlla ko ko yàlla jox yàlla defal ñu jàmm defal ko mbooleem jullit daal kontaan naa trop di sant sama grand bi nekk fii nag Ahmed Mar kontaan naa si moom trop trop trop moom ngi may jàppale di ma conseillé ndaxte man nag xale laa te xale dafa soxla ku koy gàgganti di ko wax dëgg damay nekk si loo xamante ne nii du yoon lu bari boo ma gisee ma jël samay responsabilité fi mu toll nii moom la moo ma eh lii continué wul lii mooy continué te da ngaa nekk xale yàlla teel laa teg yéen bu diis nii ngay def pour génn si maa ngi koy nuyu de di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal nag yéen yàlla defal leen jàmm ndax yow sama frère nga dama lay ñaanal barki Seydina Mohamed yàlla na seen tele bii nii dem ba dépassé kullu tele si àdduna yàlla na leen yàlla defal jàmm defal ko mbooleem julit di ñaan tamit nag suñ kombaa bii ñu jëm yàlla may ñu si ndam lu sedd guy di nuyu seex du nuyu Dóor du nuyu Birane ak moomu samay gars yi di wax ne kontaan bu baax a baax a baax baax maa leen di sant di leen gërëm waaw. léegi da ñuy mosal tuuti rek di fàttali nag nekkat rek ñoo ngi fii Gandiaye ba rek ak moom ma di nuyuwaat rek sama doomu yaay Baye Fall Gandiaye doomu lay Baye Saliou tey ren li ma ko dutee moo jël tisi bi ñaw ko. moo jël tiseem jëlu ko ba pare fay ñëw bi kooku moom maa ngi koy sant ko gërëm di fàttali nag que moom ngoom am na groupe whatsapp fans club pour Sénégal ak lamb yëpp ñëw dugg si intégré jàppale ko ndax ndaw la te moo ngi góorgóorlu. suñu bàkk la loolu sam papa ko doon bàkko ma ñëw jël ko topp ko ndax man tamit paa si lépp lu mu topp rek damaa bëgg a dem topp si loolu ba dépassé ko waaw di sant nag grand Bokar Dione. ñàkk ngemb Bokar maa leen ñàkk. borom am ngemb mooy sam président groupe di sant sama waa fan sa club bi yëpp ndaxte gis naa niñ may taxawoo maa leen di ñaanal jaamu di ko ñaanal mboolem julit leen wax ne daal kontaan naa si ñëpp yàlla na yàlla def jaamu defal ko mbooleem julit waaw li si des moom dañuy bàyyi ba yegg si làmb ja rek.